أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بك جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي أجين ci tomb boo xam ne daan nañ leen ko defal ci ay waxtu yu nekk waaye xataa yu jamono tënkoon ñu ba ñu gëj cee taxaw ndax yeneen toppoon yeneen dars yi rek ak yeneen waxtaan yi waaye moom it ci tomb yi nga xam ne yi amoon solo la ci tomb yi nga xam ne yitteeloon na mbokk jullit yi ba tax am ci ñoom ñu ñu woo soññaan ñu ba tey ñu bugg cee taxawaat ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu ci fan yi nga xam ne gëj nañ cee woon taxaw ak waxtaan gi nga xam ne gëj noon nañ ko waxtaanee gëjoon nañ ko waxtaanee ak mbokk jullit yi darsu boobu moo doon baaqa min rawdil habib muhammadun sallallahu alayhi wa sallam tey dinañ ànd ak sahaaba bu mag bu tudd barra ibnu azib radiallahu anhu wa ardaahu mu jàngal ñu benn xadis ci la mu jëlee ci jardin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom barra ibnu azib moom barra turam dëgg-dëgg ak askanam huwa moom sahaabiyul jalil sahaaba bu màgg la albara ibnu azib abu amara al ansaari noonu la tuddoon abu amara al ansaari wa huwa wa abuhu sahaabiyaani moom ak baayam yépp ay sahaaba lañ woon bokkoon na ci ay melokaanam ak ay axbaaram keroog ba mu buggee dem xeexi badr ñëw di tàggu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi xamal ne ko xale nga munoo dem xeexi badr waaye ginnaaw badr moom barra fekke na xeex yépp ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bal sax fekke na ihda asara gazwa fekke na fukki xare ak benn yu mu ànd xeex koog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mokkal na ci lu takku lu baree baree bari waaye moom sax fekke na ay dëkk yu baree baree bari yu islaam ubbi ca kuufa ak ci feneen ci faqih yi la bokkoon moom barra ibnu azib mi ngi faatu ca atum juróom-ñaar fukk ak ñaar ca gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na yàlla kontaan ci moom mbokk yi bara ibnu azib radiallahu anhu moo ñuy nettali xadis bi nee na qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam awsaqu ura al imaani alhubbu fi llahi walbugdu fi llah allahu akbar bara ibnu azib nee na li gën a dëgër awsaq aqwa wa asbat ural imaani li gën a dëgër ci fas fasu ngëm yi fas fasu ngëm yi jullit di gëm li ci gën a dëgër mooy alxubb fillah mooy bëgg ci yàlla wal buxdu fillah ak bañ ngir yàlla allahu akbar bëgg ngir yàlla bañ ngir yàlla awsaqu ural imaani li gën a dëgër ci pas-pasu ngëm yi alxubbu fillah mooy sooy bëgg bëggal ngir yàlla wal buxdu fillah booy bañ bañal ngir yàlla mbokk yi man ak yéen yëpp ku nekk na càmbar boppam ci wax ji yonent bi wax ne képp koo xam ne soo bëggee ngir yàlla bañ ngir yàlla sa ngëm dëgër na sa ngëm mat na est-ce que ñun tey ñu ngi bëgg ngir yàlla est-ce que ñu ngi bañ ngir yàlla koo fi bëgg rek am na lu tax nga bëgg ko ak ku mën doon nag ba ci soxna si ba ci borom kër gi ba ci diw ba ci diw koo bëgg rek am na lu tax ndeke li nga ko war a bëggee lenn kese la war a doon mooy yàlla waaw léegi nag nañ xool ñi ñu bañ fii moom ndax nit dina bañ nit ngir yàlla bu fekkee nit dina bëgg ngir yàlla ma leen di laaj est-ce que nit ñi tey ñu ngi leen di bañ ngir yàlla koo fi bañ rek am na lu tax nga bañ ko xadis bu màgg lañu Barra ibnu Azib indil xadis bi man ak yéen ak mbokk jullit yi dinañ ci jëlee juróom-ñeenti njëriñ bi ci njëkk mooy alxubbu fillah bëgg ci yàlla mooy lan lan mooy bëgg ngir yàlla mooy an yuhibbal muslim al islaami wa ixwaanihi al muslimina al mutamassikina bi yow jullit bi bëggal jullit yi bëggal islaam bëggal sa mbokki jullit yi yan ñan ñooy say mbokk jullit mooy ñi jàpp ci lislaam gëm lislaam di dund lislaam ñii da nga leen war a bëgg ndeke loolu mooy bëgg alxubbu fillah mooy an yuhibbal muslim mooy na nga bëgg jullit jullit du bañ jullit jullit jullit mooy mbokkam al muslim axul muslim jullit jullit mooy mbokkam kan mooy jullit al muslim man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi jullit mooy koo xam ne sa làmmiñ bi ñëpp mucc nañ ci sa loxo ñëpp mucc nañ ci koo koy jullit waaye koo xam ne sa làmmiñ say loxo say cër yaa ngi ko teg ci kaw jullit yi di lekk seen der di naan seen deret di lekk seen yàpp di seeñu seen yàq nee nañ yàlla musal ci jullit boobu jullit jullitay bokkam ñaareel bi mooy allazi yubrad allazi yabradu fillaahi mutlaqan allazina yub yubradu fillaahi mutlaqan hum alkuffar bi satta anwaihim ñi ñu war a bañ dëgg war leen noonu di war di xulóog ñoom di xeex ak ñoom mooy yéeféer yi jullit du bëgg yéeféer jullit du def ni yéeféer du def yéeféer xarit jullit du far ak yéeféer jullit du dimbalante ak yéeféer ñetteel bi mbokk yi mooy min al fawaid al mahabba fillah al iqtidaau bi saalihin bokk na ci ngéneelu njëriñ yi wane ne yow bëgg nga yàlla mooy nga roy nit ñu baax ñi saa yu fekkente ne yow yaa ngi roy nit ñu baax yi ci sa wax ci sa jëf ci sa col ci sa lépp lépp looy def yaa ngi roy nit ñu baax ñi yow bëgg nga yàlla saa yooy roy nit ñu baax ñi di leen toppandoo ci lépp yow loolu day wane ne yow bëgg nga yàlla tashabbahu in lam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil karimi falahun fa inna tashabbuhi bil karimi falahun del toppandoo del toppandoo ñu baax ñi toppandoo ku baax day tax nga baax waaw toppandoo ku baax day tax nga baax yàlla njàll def ñu baax mbokk yi min fawaidil buxdi lil kafirin imtisaali amrillah wa adami tashabbuhi bihim bokk na ci liy wane ne yow dangaa bañ yéeféer yi dangaa bañ kàccoor yi dangaa bañ saay-saay si mooy nga jàpp ci li la yàlla sant nga bañ leen a toppandoo nga bañ a nuru nurulu ak ñoom man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum ku nuru nurulu ay nit yaa ngi ñoom a yem kuy toppandoo ay yéeféer yaa ngi yéeféer yee yem da ngay gis tey sunu mbokku jigéen yi ku sol dàll càpp sol mini xeesal yaramam dóor ay cheveux indien rose à lèvres poose we poose bët poose ange poose poose la ilaha illa allah ah yal na yàlla gindi jullit ñi sànku nañ jullit ñi sori nañ yàlla tabaraka wa taala yal na leen yàlla delloosiwaat won leen dëgg yal nañ yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañ yàlla won neen mu wërsëgal ñu ñu sori ko mbokk yi bokk na ci ngëneel kuy wane ne yow dangaa bañ yéeféer mooy nga jàpp ci li yàlla sant nga jàpp ci yàlla nga bañ a nuru nuru lu yéeféer yi juróomeel mooy baadul kaafir laa yaqtadi zulmuhu wal ictidaau alayhi bal yubradu bil qalb wala yuzlamu bi bil ictidaai alayhi fi nafsi aw maalihi aw irdihi maa daama lahu ahdun aw wa amaan lenn ci ay yéefér kenn waru leen tooñ kenn warul jalgati seen kaw dañ ko war a mere ci xol feeg tooñuñu jalgatiwuñu waru ñoo yàq alalam waruñoo tuur deretam feek mi ngi am ak ñun dig dafa war a nekk ci jàmm nekk ci sécurité yéeféer bu nekk ci dëkk jullit loroo jullit duggoo ci ay mbiram xeexoo diineem gàllankooroo ko ci jaamu yàllaam jullit bi dafa war a am ak yow jàmm gis ngeen lislaam mooy diine dëkk wala yajrimannakum sanaanu qawmin ala an laa taadilu idilu huwa aqrabu littaqwa bañ ay nit bu mu tax ngeen bañ a maandu ci seen mbir yàlla nee na maandu leen mooy tax ngeen ragal yàlla wa qulu linnaasi xusnan nit ñi na ngeen leen wax lu baax wala tujaadilu ahlal kitaab illa billati hiya ahsan su ngeen di discuter ak ñoom sax na ngeen wax lu rafet juróom-benneel mooy buxdul kaafir laa yamnau min altaamuli maahu bi bayin aw shira aw geyru zalika min almuamalat almubaax bañ yéeféer waru tax nga bañ a jëndante jëflante ak moom jëflante bu baax lu mel ne njënd ak njaay ak leneen lu dul lii ci yeneen yi nga xam ne dañ koy jëflante te lislaam sant ñuy jëflante ci ak moom loo ko bañ bañ bañ am na ci mbir yoo xam ne mën ngeen koo séq diggante njënd ak njaay diggante jëflante ci lenn mbir yu dagan loolu lislaam nangu na ko juróom-ñaareel mooy al muslim al aasi yajtamiu fi xaqihi al xubbu fi llah wal bugru fi llah fa yuhibba lima maahu min al imaani wa yabgadu li ajlihi min maasiyatihi jullit dëgg-dëgg al muslim al aasi jullit bi nga xam ne moom sax day def ay bàkkaar yajtamiu fi xaqihi dina dajew ci dëgg moom jullit boobu alxubbu fillah suy bëgg mu bëgg ci yàlla wal buxdu fillah buy bañ mu bañ yàlla mu bañ ngir yàlla sooy bëgg bëggal ngir yàlla sooy bañ bañal ngir yàlla fa yuhibbu lima maahu min al imaani ndax li nga yor ci ngëm mooy tax nga bëgg li nga yor li nga bañ ci lenn li nga yor ci ay bakkaar mooy tax nga bañ yéeféer sooy bëgg da ngay bëgg ngir yàlla booy bañ nga bañ ngir yàlla loolu mooy dëgg-dëgg kii am na ngëm même bu fekkee julli bi day def bàkkaar sax loolu dëgg-dëgg war na ko yor ci xolam mooy bëgg ngir yàlla bañ ngir yàlla juróom-ñetteel haza taamul ma al muslim al aasi yakunu sababan fi salaahihi même jullit boobu nga xam day def ay bàkkaar nga xam ne yow bi nga koy mere yaa ngi ko mere ngir yàlla bi nga koy bañ yaa ngi ko bañ ngir yàlla jullit boobu soo demee bay jëflante ak moom mere gi nga koy mere mooy tax mu dellu siwaat bañ bi nga koy bañ mooy tax mu dellu siwaat bëgg bi nga koy bëgg ngir yàlla mooy tax muy dellu siwaat moom jullit boobu gis nga jullit yi dañoo waroon essayer leen rek mooy bu ñu gisee jullit bu bañ bu bon jullit buy def lu bon ñu mere ko ngir yàlla ñu bañ ko ngir yàlla dina baaxaat ngir yàlla moom jullit boobu ndax mere gi ñu koy mere yakunu sababan fi silaahihi loolu moo koy baaxal wallahi waccinaa bi naas ani taasiru bihi ndax julli ñi dañ koy sori naan kii nangam ak nangam bu yàggee mu tiit ci loolu mu daw loolu mu daal di koy sori mu daal di dellu siwaat ci biir mbooloo jullit yi mu daal di dellu siwaat ci jàkk jullit yi mu daal di dellu siwaat ci péncam jullit yi mbokk yi juróom-ñeenteel mooy alal muslim an yaxrisa ala daawatihi lil aasin bi tawba wal iqla anil maas wa an yahrisa ala daawatihi lil kafirin bi duxuli fi lislaam jullit dëkk mooy kuy xër di woote ci li muy woote day woote ngir yàlla di woo mbokki jullitam yi pour ñu tuub jullit mbokki jullitam yooyu di mooy yàlla pour ñu tuub simmeeku ay bakkaar ñu xër ci woote lislaam topp yàlla dugg ci lislaam mooy tandiku pexe yéeféer yi ak pexe noon yi mbokki jullit yi kon hadisu barra ibnu azib bim ñu jàngal ne ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na aw saqu ural imaani alhubbu fillah wal bughdu fillah juróom-ñeenti mbir yooyu lañ ciy jëlee yal na ko yàlla def ci ñun yal na yàlla saxal ñu ci lislaam yal nañ yàlla dundal ci lislaam rey ñu ci lislaam dekkil ñu ci lislaam dugal ñu aljanna ñu ànd ak lislaam na yàlla saxal ñu ci njub asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.